ngi tudd Fallou Ndiaye di membre fondateur bu Touba ca kanam actuellement man président commission communication di vice président Touba ca kanam Touba ca kanam dafay mbirum Serigne Touba euh, xëy na bi mu juddoo ak léegi yàggul ñu ngi ci ñetti at jàpp ñeent euh, mu def fi ay liggéey yu am solo euh, ci tàmbali bi Euh, mu ngi tàmbalee euh, ci émission boo xam ne dañ ko doon def tudde woon ko Touba ca kanam émission boobu biñ koy taxawal liñ ci jublu woon mooy conscientiser murid yi nga xam ne ñoo féete fi ci Touba ngir ñu xam ne Touba war ñu cee xaar kenn ndax euh, Touba dafa nekk dëkk boo xam ne sëriñ Touba moo ko moom ñi fi dëkk ñëpp suñ Touba la ñu yaakaar waaye nag mu am lu ñuy wax projet de société boo xam ne suñ Touba daf ko ñaan ci dëkk bi waaye nag mu mel ni loolu murid dañoo yëgul na ñoom ñoo ko war a taxawal seen bopp idée boobu lañu amoon ngir bëgg a fexe ba kenn ku ci nekk gëm ne li sëñ Tuubaa ñaan ci dëkk bi yow da ngaa war a bokk ci ñi nga xam ne dañuy jëmmal lool euh, ñu commencé di xool li nga xam ne gis nañ ne jaaduwut ci dëkk bi ñu ci alerte nit ñi di lay wan lii jaaduwut lii dañ ci war a taxaw def ko émission tuddee ko tubaa ci kanam euh, biñ koy def à travers YouTube lañ ko doon jaarale. mais boobu dañuy constater bu ñu ko dugalee ñi ciy commenté du waa Touba waaye ñi nekk ci biti la alors que cible bi ñu soxla mooy waa ñu bitim réew ñoom ñoo ciy commentaire di wax ne lii du yoon lii jaru Touba waxta mel nii ndax boobu dëkk bi am na ay rond point yi fi nekkoon ci entre dëkk bi daanaka ñiy sàmm seen xar fa lañuy yóbbu seen xar ni ngir ñax niñ ko bàyyee woon mu mel ni même ñu dëkk dëkk bi sax duñ ko bàyyi xel duñ ko seetlu waa dëkk bi dañuy jàpp ne fii ni mel dafa am ñu ko war a defar alors que ñoom ñoo ko war a defar biñ koy bi ñuy def noonu nag euh, fu ñu gis ne la fa nekk marché yi ni muy mel ñu dem def ay reportage di wane euh, am benn jour am sama benn xarit boo xam ne dafa ñëw sama bureau ñuy waxtaan mu ne dafay dem benn mariage boo xam ne dafa am euh, ñaar ñoo xam ne ci benn groupe WhatsApp la ñu xamante bay takkante ci lay dem ko lan mooy WhatsApp boobu xamaguma mu ne ma benn groupe lu benn application boo ko téléchargé da ngay dajale ay nit su ko fee ñu waxtaan loolu soxla naa ko dafa am lu ma lu ma am loo xam ne Touba ca kanam laa ko tudd def émission te léegi cible bu ma soxla Touba la kon léegi yow wan ma nuñ koy defee ci la ma wan application ma installé ko sama téléphone c'était en 2016 le 9 juillet 2016 euh, bi ma créé application bi ma jël numéro yi am sama répertoire yëpp dugal leen ci tuddee groupe bi Touba ca kanam commencé jël vidéo yi dugal ko ci biir yàlla def ne Moustapha May mi nga xam ne moo nekk Dakar Actu moom moo ci njëkk a wax ci Touba ca kanam moom moo njëkk dugg ci groupe bi daal ne sëñ Fallou lii nga ma dugal de muy Touba Kanam moom am naa ci mbégte ñu commencé di ci débattre su ma defaree benn vidéo dugal ko ci biir ñu ciy waxtaan comme nag mbooloo fu ñu dajee bokk benn pas-pas di waxtaan bu yàggee foofu solution feeñ euh, ñu gis ne reportage bu ñu def ci dëkk bi autorité dañuy jug saafara loolu ci loolu nag ci biir groupe bi ñu ne nag lii moyen de pression la boo xam ne dañ ko war a gën a jëmmal jafe la ndax xamul ndax mu jafe mooy euh, xam nga fii day dëkku kilifteef te dafa am Touba Ca Kanam ak ampleur bi ak fi mu toll ci yoon dafa waroon a déparé ci koo xam ne o moins dafa am mbooloo wala mu dépassé démarré ci koo xam dafa am alal bu ko fee au moins dana da mën a xam ne kii kat lii bu ko yëkkatee mën naa dem na am na mbooloo kii bu ko yëkkatee na am na alal mais ñun bi ñu koy démarré boobu zéro lañ démarré waaye pas-pasu liggéeyal Sëñ Touba lañ lañ ci amoon xëy am na ñoo xam ne duñ gëm na sax lii euh, liggéey Sëñ Tuubaa waaye am na leneen lu nekk ci suuf ndax euh, sëñ Cheikh Abdou Bale yàlla dogal na kër gi ñu nekk sëñ Cheikh Abdou bokkoon ci groupe WhatsApp bi ñu bari dañ na wax na sax sëñ Cheikh Abdou moo créé benn groupe WhatsApp ngir xeex commune Touba ndax boobu ñu doon lu ñu dénoncé day mel ni ndax commune bi lañ dénk dëkk bi kon liñ ne jaaduwul day mel ni commune bi la ñuy waxal alors que c'était moom dañ ko ci boole mu ci indi ay mu ci indi xalaatam mu jafe woon lool yàlla def nag bi ñu dem euh, di wër sëriñ si di leen ko yëgal baag ci sëñ Abib bu sëñ Fallou biñ ñëwee wax ko ko ne ko kat dafa am loo xam ne dañ ko taxawal muy tubaat Ca Kanam expliqué concept beeg yëpp euh, moom mu rafet lu ko bokk ci daal ne dafa amoon xalaat daal ne euh, reportage yi ñu def di jàmbat lu baax la waaye nag xool ni ñu koy solutionné dafa gën daal ne bu ñu mënoon a fexe am 2 millions personnes kenn ku ci nekk chaque fin du mois nga joxe 1000 francs muy 2 milliards par mois at kon yi ñuy jàmbur yëpp dañ koy mën a defaral suñu bopp ci loolu nag ñu waxtaan ceeg moom rafetlu ko na ko nag buñ sañoon loolu nga jiiteel ñu ko ndax lu toll noonu kilifa rek moo ko mën a jiite moom it mu rafetlu ko daal na nag bala koo jiite dañuy laaj ndigal kilifaam muy sëñ abo sëñ fàllu biñ demee mu wax sëñ abo sëñ rafetlu ko ànd ci ba pare génn xaalis joxe daal na du leen sëñ Sidi Mokhtar ndax jamono sëñ Sidi Mokhtar moo fi nekk mi nga xam ne mooy mooy kilifa gi ñu dem fa leere ko ko moom it mu joxe ci ndigal ne mën ngeen ko wéyal ci lañ fa jógee dem sëñ Muntaxa ndax moom mooy doonoon jëwriñ bi biñ demee moom it ci saasi mu daal ne eh, ndax boobu sëñ bu lancé na projet eh, muri 1000 francs sëñ Muntaxa wax ne moom du daggal boppam moom rek mais dana daggalal juróom-ñeenti murid yoo xam ne bëgg nañ te mënuñu mu participer ak moom muy fukk daal di génn cent 120 000 francs jamono daal koy joxe eh, ci la liggéey bi nag démarré murid yi commencé ñëpp di ko di ko di ko di ko di ko di ko bëgg di ñëw ndax li waral loolu mooy dañ ko def comme vitrine liñ naan laaj luñ nit ñi lu ñu mën dañ ko def fu ñu xam Touba Ca Kanam loolu bokk na ci li gaawal ab doxinam ndax nit ki bu la dee jox alalam day bëgg lu koy wax na ko sa alal fii la nekk Sëñ Muntaxa ni mu ko jàppee mooy ki ko jiite ndax dafa wax ne mbir mu nekk ku ko jiite rek moo ci am solo sëñ Abibu bu sëñ Fàllu doomi sëñ Fàllu la waaye nag di ku naw ci yoon wi di koo xam ne ab murit la amul lenn loo xam ne mën nañ koo tudd ci daram mi di ko gàkkal sëñ Muntaxa bañ demee ànd ak sëñ Abibu daf ne euh, ba ma si séenee sëñ Abibu rek la sama xel dal te xam ne sëñ Abibu lépp lu mu dugg sëñ Tuubaa da cee dugg sëñ Siidi moom sëñ Abdulaa dafa wax sëñ Abibu euh, yow fu ma la séen ñam naa topp ca ginnaaw boo duggee si kàmm sax mu dugg ci kàmm ngir xam ne kii lépp lu mu nekk rek lu sëñ Tuubaa gërëm la sëñ Muntaxa moo tax bañ ànd ak sëñ Abibu ci saasi mu daal di xamal ne lii nii ndolleel la ndax doon luñ sos waaye kenn ku nekk la nga nekkoon mën nga caa nekk waaye weer bu ne ñaar téeméer du wàññi kenn dara te bu dajaloo doon lu bari daal na nag liggéey ngi nii boo xam ne euh, fuñ bëgg mu àgg dana fa àgg bi nga xamante ne yàlla dogal na sëñ Sidi Moxtaar jóge ba mu toog jëmmi ba mu nekk euh, toog jotaayu sëñ Touba bi dafa wax ne Touba ci kanam amoon naa ci yaakaar waaye léegi yàqin laa ci am na du sëñ Touba nangu la kon nag euh, moom daal di woo Cheikh Bass woo sëñ Abibu daal ne daal na Cheikh bëgg man yow ak sëñ Abibu tubaa ci kanam gi nañ na ci kanam ba lépp lu ko war a gàllankoor ñu taxaw dindi loolu ndax mbir la moo xam ne bu ci kanamee lépp lu yoonu murid soxna lépp loo xam ne état waroon na koo def fii ci tubaa Touba ci kanam dana ko mën a defar. Serigne Touba la yàlla nangul ndax euh, ñun bi ñuy bi ñuy bi ñuy sëñ Muntaxa joxe ndigal euh, ne màggal gi mu ngi jub si te gis nañ ne euh, ci nawet la maa gi nekk ba ci at yi di ñëw maa ngi dafay nekk ci nawet kon Touba ci kanam lépp lu ñu mën ci wàllu assainissement Touba ci defar mbedd yi nañ ci taxaw bi mu ci joxee ndigal bi ñu demee ñu waxtaan ñu tànn 20 sites yoo xam ne nañ ne ay sites yoo xam ne suñ décanté situation ci maagal gi au moins dana mën a am lu mu saafara ba nit ñi mën a dem beeg dikk bi mën a mën a jàppandi bi ñu defee études yi mu tolloon ci million millions 350 millions yoo xam ne Touba ci kanam daf koo génn woon liquidité pour defar lool ci biir loolu nag ñu ne nañ woo murid yi ñu jaayante euh, ndaxte euh, dafa ñëw hasardement ni rek mais dañoo génn woon somme bi pour pour pour defar ko mais nag ñu ne nañ nañ nañ ci woo murid yëgale ne dañoo sëñ bi dañoo jox ndigal ngir ñu defar yoon yi ci loolu nag euh, ci lañ wooyee murid def appel wax ne kat sëriñ bi jox nañu ndigal ngir ñu defar yoonu dëkk bi woote ko comme déjà li gën a am solo mooy li ma wax sànq nit ñi laaj leen lu ñu mën waaye di ko fu ñu xam lol dafa bok ci foru Touba ci kanam ndax weer wu jot dañuy leeral weer wu jot danañ wax fépp xaaliss xaalis jóge danañ ko leeral lol mom bok na li li njëkk jëmmal ndax bo gisee ñi buñ laajee nit ñi dañuy jox nit ñi dañu am ci ñun confiance ndax kenn ku nekk japp nga li nga jox Touba ci kanam fa nga bëgg mu dem fa muy sëñ Touba dana ko fa def lol mo ñu taxawal ben commission buñ wax commission finance nga xam lepp lu jëm ci wala xaaliss Touba ci kanam ñom ñokoy sayt deureum bu dugg weer wu jot dañ ko leeral chaque fin de mois lépp loo xam ne fere nañ ko danañ ci leeral lépp loo xam ne des na ko fi danañ xamal ne murid yi lii moo des ci kees gi loolu nag gis nañ ne bañ ko tàmbalee léegi liggéey bi dafay yokk ndax Touba ci kanam ba ñuy doog a ay weer 10 millions lañ doon am weer 15 millions weer 50 millions ba weer wii jàll Touba ci kanam récolté na 200 millions yoo xam ne bokkut ak 1 milliard 500 bi nga xam ne dajale dajale lañ ko fan yi loolu lépp li ko waral mooy liggéey bi da dafa tàmbale sëñ Touba yam ci sëñ Touba raxul dara ndax bu fekkoon tamit dara nit ñi seen xol yi sëñ moo ci nekk lépp loo leen laaj sëñ tubaa ñu jox la ko waaye bis bu ci dareen laxee soo leen laajee duñ la ko jox Tuubaa ci kanam day mbir moo xam ne dafa tàmbale sëñ Tuubaa yem sëñ Tuubaa waaye nag ñu di ko leeral euh, incha allah euh, dèjà rek assainissement bi nga xam ne tàmbali nañ ko euh, ci diiru weer ñu defar fa ay sites yu baree bari dëkk bi def nañ fi lu tolloog 5 kilomètres yoo xam ne dañ ko tali goudronné ko nga xam ne actuellement ubbi nañ ko oto yi ñu ngi dem ko dikk ci diiru weer lañ ko def loolu tamit suñ màggalee ba pare dañ koy continuer ndax bi ñu ko tàmbalee ci lañ xam ne lii du dara mën nañ fi ndax xam-xam bi mu ngi fi am nañ ay pôle d'ingénieur yoo xam ne lépp lu ñu soxla ci xam-xam ñu ngi fi te pare nañ ko ànd ko ñun jënd nañ matériel bi nga xam ne moom la ñuy defaree assainissement moom la ñuy defaree tali mu ngi fii ci dëkk bi ci li ñuy liggéey buñ buñ buñ liggéey buñ bu màgg ak jàll dañuy continuer assainissement bi ñu doon def Euh, Touba ca kanam projet société bi mu yor mooy li sëñ Touba bind ci Matlabul Fawzayni ndax Matlabul Fawzayni sëñ Touba lépp lu mu bëgg ci tubaa daf ko cee bind ñaan ko suñu borom ba suñu borom may ko ko loolu ci la Touba ca kanam teg tànkam fas yéene li nga xam ne suñ tubaa ñaan na ko ci dëkk bi Touba ca kanam bu mënta def lépp it ci ñi nga xam ne danañ jëmmal loolu loolu nag euh, sëñ Touba ñaan na lépp dëkk bi dafa wax suñu borom wàccan ilaahi maskani Touba abad mislas miha bi jaay xayri man abad mu mel ni turandoom wa si àjjana àjjana sax amul lenn loo xam ne nuru na ko fii ci àdduna waaye lañ ci lim ci jublu rek mooy mu doon loo xam ne dëkk boo xam ne eh, dëkk lépp lu nit ki bëgg loo xam ne dafay dafay tax ak njulitam dëgër dafay tax ak nekkam eh, baax loolu am fi ndax nit fu mu nekk dana bari loo xam ne da koy soxla bu bëggee faju faju bu bëggee génn génn am sécurité am am lépp Touba Ca Kanam taxaw ci day taxaw ci loolu ni turu daal mooy Touba Kanam lépp loo xam ne dafay jëmale dëkk bi ca kanam ci vole bu mën doon moo xam volet santé bi ndax actuellement nii nii nii eh, defar nañ ñaari poste santé yoo xam ne noppi na actuellement ni ba jébbal nañ sëñ bi caabi ci Touba ca kanam la ndax actuellement yu pare actuellement euh, boo demee Kër Gol boobu pare na bañ occupé ko soo demee Bobareel pare na bañ occupé ko bañ occupé yooyu benn bu ci nekk def nañ ci minimum 140 millions yoo xam ne dañ koo tabax ba mu mat moom am ay logement ñu équipé ko lu jiitu boobu am na buñ defar boo xam ne mu ngi lansaar boobu fonctionnel na mu ngi dox fii ak am na yeneen ñaar yoo xam ne dañ ko réceptionné di même que yéene nga xam ne au daal six postes de santé yoo xam ne benn bu ci nekk valeur am ëpp na 100 millions Touba ca kanam defoon na ko bu dee lu jëm ci wàllu éclairage public dëkk bi képp ku ñëw da nga gis xar kanam bi nu mu soppee ko Touba ca kanam avant màggal gi defoon na fi 1960 lampes yoo xam ne bokkut ak lampes solaires yi nga xam ne état du Sénégal def na te dëkk bi gis nañ ni mu leeree actuellement mii may wax ak yow indi nañ conteneur 3000 lampes yo xamne buñu magalé ba pare semaine bi top dañ koy commencer diko ko continuer di monter ci dëkk bi nga xamne bu déwéné ku ñëwaat da nga da nga gis da nga gis euh, yok daaw bi magal gi jallé ku fi ñëw ba dem da nga li ngay wax moy Touba jafa jafa ndox la ñam la fi néwon daaw nak ba tay jugu fi ndax actuellement ni euh, diggante màggalu daaw ak ren Touba ci kanam jënd na fi 6 pompes forage jox ko wa Maaw rahmaté forage bu fi yàqu rek Touba ci kanam mom moko defal forage yooyu amul benn bu ci panne ñu ngi fonctionné mais li forage yi génne demande bi ah, xam nuñ ko nuñ koy waxee sax offre bi demande bi du ko ëpp waaw li nit ñi soxla ak li forage yi indi dafa kii Touba problème waaw voilà loolu la euh, état du Sénégal am na quatre forages yoo xam ne nasaroon nañ ko ba màggal euh, wax nañ ne ñett yi noppi na benn bi moom du noppi mais ñetti noppi ba bii su guddi fonctionné gut nga xam ne bu waree fonctionné tey la comme nag daaw ndox dafa manqué woon te diggante daaw ren population Touba yokk na waaw ah, suba moo ci des réseau bi tamit yokk nañ ko ci diggante bi kon jàpp naa la amoon daaw pire day amaat kon nag euh, ñu fagaru te bàyyi ko xel bu baax a baax ñu ngi wax sax ne euh, xëy na euh, travaux yu Touba ci kanam doon def bokk na di ko causé loolu démb toog nañ ci ak ak préfet ak sous préfet waxtaan ceeg ñoom leeral nañ leen ni mu demee tubaa ci kanam amul benn benn benn conduite boo xam tubaa ci kanam laal na ko te defaruñ ko ci saa si jafe-jafe ndox mi bokk na ci li ko indi dafa am benn conduite bu nekk ndaamaatu boobu waa Maawu Rahmati dafa amoon fuite ñoom ñu war ko defar pour ñu defar ko il faut ñu tëj quatre forage tëj ko biñ ko tëjee 24 heures parce que fi mu nekkoon dafa nekk ci tali amuñu engin yu ko dindi ñu sollicité Touba ci kanam Touba ci kanam ni matériel ñu toj foofu mun ko jot nga xam ne 48 heures yoo xam ne dañoo tëj ñeenti forage Touba euh, dëkk la boo xam ne forage yi la mooy amul benn forage boo xam ne nga naan karsam lay alte forage yëpp dañoo dañuy dem dañuy demandoo politique buñ ko ci raxee dootu doon Touba ca kanam day tas Touba ca kanam liggéeyal sëriñ Touba la ñii politique mën nañoo bokk ci biir ndax ay murid lañ waaye nag ku xas dugg ci biir politique amu ci si sëñ Touba la tàmbalee si sëñ Touba lay yem buñ ci raxee leneen lu dul sëñ Touba su boobaa ci xol taalib lay génn ndax woote ci diiru weer nga am un cent ay nit jox la te ña la koy jox xamuñu dañ la ko jox ngir jëmmi sëñ tubaa ñooñu sëñ Touba la ñu xool bis buñ ko raxee def ci leneen lu dul sëñ Touba su boobaa boo wootee doo gis kenn ndax ci sëñ Touba la tàmbalee sëñ Touba la màggal gi liñ ci def bari na. Euh, bu dee ci côté social dañu am benn commission bu ñu wax commission sociale ci wàllu dimbalante ngir ñi nga xam ne ñoo nekk ci sañtaan te seen loxo jotu seen ginnaaw ñooñu dégage nañ benn enveloppe 30 millions jox ko commission sociale ñu jàppale ci askan wi. beneen bi ci des mooy ndigal li ñu sëñ bi joxoon muy lu jëm ci wàllu assainissement bi nee naa la defal nañ fi lu tolloog 5 kilomètres de route yoo xam ne def nañ ko fi ak mbedd Touba yoo ne mbedd yu ci bari dañ koo sëkk dañuy dem décapi ko ko sëkk ko jël ay engins ñu dem ñu niveler ko compacter ko ba actuellement. tubaa ci kanam def na ci màggi xaalis bu baree bare bu dee lu jëm ci wàllu ndigal li nga xam ne sëñ bi joxe na ko euh, lu jiitu màggal gi ndax euh, gis nañ ne 2 mars la fi feebar bi Covid bi duggoon bi sëñ bi joxee 200 millions jox ko état ba pare wax ne képp ku ko yaakaar na def noonu instant boobu Touba ci kanam dafa débloqué 50 millions mbooloom luy district sanitaire yoo xam ne ñoo nekk Touba Touba ci kanam appuyé leen ci wàllu matériel ci wàllu détergent ci lépp jàppale jël lu tolloog junniy famille yoo xam ne dañu leen a jàppale ndax weeru mbas wi weer weer wi nga xam ne euh, mooy mars bi gis nañ ne activité économique dafa arrêté ñu jël tolloog 1000 daara daara yu ñu jox leen dund jox leen ay ay produits détergents yoo xam ne moom moom la ñu kii actuellement nii ñu ngi ñu ngi def ay logements sociaux yoo xam ne ay wanag ndax am na ñoo xam ne tey bu ñu amee ay gan sax waxuma la néeg sax waaye war ay wanag sax amuñu ko Touba Ca actuellement mu ngi defar ay wanag yu bari ci sancaan ngir balaa màggal gi nit ñi mën cee jàppandi ba ci prison yi muy prison bu Diourbel muy prison bu bu Mbàkke actuellement fenn fu ci dem nañ fa laaj leen lu ñu bëgg jëndal leen lépp bi nga xamante ne bii sëñ bi woote nañ setal dëkk bi Touba ci kanam jënd na tolloo 15 nag boole koog ceeb jox ko comité bi nga xam ne ñoom la sëñ bi dénk loon ngir jëm seen wàllu dund waaye Touba kanam moom lépp loo xam ne daal lu lu lu jëm na Touba ci kanam la suñu loxo day dugg ci lool maa ngi sant ñëpp di leen gërëm eh, di ñaan ci barkeb Serigne Touba eh, feebar bii di feebaru eh, Covid 19 yàlla nag ko fi màggal Touba jëlee. Euh, jafe-jafe yi nga xam ne amoon na fi tamit yàlla fi màggal Touba jóge euh, li des ci dund daal yàlla na lépp di tawfeex yàlla na lépp di sutura ñëpp am jàmm di ñaanal sëriñ Muntaxa suñu borom gën ko fee yàggal wér ko ba nësër yi nga xam ne mu ngi koy nësër suñu borom euh, may ko kàttan ak wér ba mu àggale ko di ñaanal nag suñu jëwriñ sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Abdou Lahat moom sëriñ Abibu ak suñu président sëriñ Abdou Fatah Gaye ak mbooleem Touba ca kanam gépp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu